bokk internet Yaatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu di koy yéen la gën a fees ñu daal di koy door ak l' accident bu métti boo xamante ne bii nag moo daal di xew foofee ca yoonu Paraxaan ba ginnaaw ni ki màggal googu la ñu fay waajal dëppoog nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi accident bu métti bale ginnaaw nag benn tata ak benn oto Mbàkke Tuuba bin fay dajee nag la bin fa dajee nag la daal di mbëkkante ñoom ñaari oto yooyu yee ginnaaw bi ñu lu toll ci juróom-ñett ci ay nit rek daal di cay ñàkk seen bakkan ca sensé waaye lu tegal ay nit ñu bëri nag daal di cay amee ay gaañu gaañu ñoom it ca sensé ñu daal di leen di rawale l'hôpital loolee nag di mbir moo xamante ne bii mu yéeme la moo daal di xew ni ko démb ci guddi gi rek ci foofee ca yoonu. Porokhane dëkk bu sell boobee nga xamante ne bii nag lu ëpp ci taalibe yi nag ñu ngi fex wutali foofule ginnaaw nag màggal goo xamante ne bii kilifa ak diine gi lee di Cheikh Mouhamadou Mountakha ma nga fa daal di wutali ngir ñu daal di koy fàttalikoo soxna bu Buso foofee nag ni ki suba ci alxames bi la war a daal di doon waaye nag ni ki démb ci guddi accident bu métti nag moo daal di am ca yoon woo wala di yoonu Porokhane